ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عباد الله يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى وأنهم خلق من أشرف خلقه وعباد مكرمون من عباده خلقهم من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار الحمد لله فاتر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأنه تعالى فعدل بينهم فمنهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومنهم دون ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen dénk ngeen sax ci ragal yàlla ba bis du ngeen di deeye ngeen di deeyaale ragal yàlla gannaaw loolu sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi tagg ab yonentam di tagg ña nga xam ne ñoo ko gëm ne yonent bi day gëm na li ma wàcce ci moom ñi ko gëmit gëm nañ li ma wàcce ci moom gëm nañu yàlla gëm nañ malaaka yi borom bi gëm nañ ay téeréem gëm nañ ay yonentam gëm nañ bis bu mujj ba lii mbokk dañuy wone ne ndekete ca la nga xamee ne mooy ponk ngëm bokk na ca gëm ay malaaka borom bi suñ xutba tey mooy nu ñuy war a gëme malaaka yi nu ñuy war a dunde ak malaaka yi mbokk malaaka yooyu la ngay jëkk a gëm mooy ay mbindaafan yu tedd lañu ci mbindaafanu borom bi subhanahu wa taala mboolem li yàlla bind ci ay mbindaafon malaaka yi ñoo ca gën a tedd ci seen mbooloo ay jaam lañu yu sunu borom yàlla teral ay jaam lañu yoo xam ne yàlla mi ngi leen binde ci leer sunu bàyyi aadama mi ñu jur ñun ñépp yàlla mi ngi ko binde ci ban amma jinne yi yàlla mi ngi leen binde ci sawara sunu borom yàlla mu ne cant ñeel na ki bind asamaan yeeg suuf ki nga xam ne moo bind malaaka yi utal leen ay laaf mu lay wan ne malaaka yi dañuy naaw am nañ ay laaf doonte ni ne laaf yi bu ko jàppee laafu picc sunu boroom yàlla subhanahu wa taala mu ne am na ñu ca am ñaari laaf am na ñu ca am ñetti laaf am na ñu am sax ñeenti laaf sunu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na jibril alayhi salaam juróom benn téeméeri laaf la yor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na ko mu daal di saddal ufuq fees dell penku sowu fu yonent bi xool du gis ku dul jibril sunu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ni nii yéeféer yi dañoo jàpp ne ay doom yu jigéen lañu sunu borom mu ne ndax ñoo fekk ba ma leen di bind danaa bind seede googu yowmal qiyaama ma laaj leen mbokk malaaka yaa ngi noonu yor bind bu seen borom xam doomu aadama ordinaire munul dékku gis malaaka naka yàlla binde yàlla def na leen du ñu lekk du ñu naan yàlla def na leen du ñu nelaw du ñu sëy amuñu ci bi- seen biir ay góor ak i jigéen doonte ne sunu borom léeg-léeg daana leen yónni ñu feeñi ci melokaanu doomu aadama noonu lañ dikkale woon ibrahim alayhi salaam bañ koy bégal ne da nga am doom ba ibrahima sax reyal leen aw nag jàpp ne ay nit lañu fekk ay malaaka lañu noonu lañ dikkale woon yonent yàlla luut ci melokaanu jeunes yu taaru fekk seen waa dëkk ay góor jigéen lañu woon loolee ngiree ñu fitnaal leen ba mbugulum yàlla wàcc ci seen kaw loo xamee ni nii maa ngi am xabaar bu ma naqari lool ñu ne Barack Obama mi nga xam ne moo jiite États-Unis États-Unis boobu nga xam ne tey dañ ne moom mooy bay mooy ndey ak yaayu démocratie États-Unis boobu nga xam ne moom la ñëpp di roy ñu ne Barack Obama ko favorable la nee na léegi pour góor jigéen ñi di mën a sëy seen biir bokk loolu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loo dégg Amérique da nga ko dégg France balaa yàgg da nga ko dégg suñu réew doonte ne ñoom bañ ñëwee dañu woon pour alag waa dëkk ba sunu borom yónni na malaaka boobu ci Mariama mu melal ko benn góor bu taaru ca la ëfe woon ca baatu mbubbam loolee tax mu jur Isa sunu borom boobu moo ko yebaloon ci Haajara mu nekk benn góor muy Jibril alayhi salaam ba mu ñëwee këdd fa zamzam nekk ndox ma di fa balle ba sunu jamono yi tey noonu nit bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dund jibril daana ñëw feeñu ci melokaanu nit ku ñu xam ak nit ku ñu xamul daana yor melokaanu dihiyatul kalabi di benn góor gu taaru nekkoon kilifa saxaaba yi jàpp ne moo ñëw seet si yonent bi ndekete jibril alayhi salaatu wasalaam la yéen a ngi dégg xataa xeet yu jëkk ya xamoon nañ ne malaaka yi daana feeñ ci melokaanu nit moo tax kii nga xam ne mooy soxna premier ministre Égypte ba mu woowee jigéen ñi Égypte pour fitnaal leen wan leen Yuusuf alayhi salaam jigéen ñi bañ ko gisee dañ ne haasha lillah ma haza bashara in haza illa illa malakun karim dañ ne déedéet kii dee du nit kii kay malaaka la bu jur bu jël melokaanu nit loolee mbokk da ngay gis ne ñooñooy malaaka yi borom bi subhanahu wa taala sunu borom gënal na leen am na ñuñ ciy tudde al muqarrabuun ñooñee am nañ ci ay kilifa kay kilifa malaaka mboola seen mooy jibril alayhi salaam mi ngi noonu ni yonent bi alayhi salaam mel ci doomu aadama yi noonu la mel ci mboolem malaaka yi mutain sama amin malaaka yépp ay ndigalam la ñuy topp mooy yàlla lu muy digle moom la koy jox jibril boobu moom mooy wàcce liy dundal xol yi te mooy ah téere yi wàcc ci yonent yi alayhim salaam bokk na ko ca topp mooy mikail mikail boobu nga xam ne moom la yàlla dénk lépp loo xam ne dund la gàncax yi garab yi lépp loo xam ne day ñor loolee sunu borom commandement boobu mi ngi ko tekki loxo mikail gannaaw ba israfil mi nga xam ne mooy nar a ëf béjjén ba béjjén boobu nga xam ne moo gën a yaatu asamaan yi ak suuf bu ko ëfee lépp jaxasoo ñépp dee su ko ëfaatee ñépp dekki loolee mbokk da ngay gis ne gannaaw ba it am na yeneen malaaka yoo xam ne ñu nga war arsh ak yeneen yoo xam ne ñooy yenu arsh rahman ci yenu teraanga malaaka yooyu mbokk sunu borom nee na duñ mooy yàlla duñu mooy yàlla abadan ca li yàlla santaane rek la ñuy def sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na malaaka yooyu day képp koo xam ne weddi nga yàlla weddi yeneen ci yàlla ak i téeréem weddi ay malaakaam ku mel noonu day da ngay gis ne réer ne réeraay gu sori lool mbokk malaaka yi seen lim seen borom rek moo ko xam sunu borom mu ne wa ma yaalamu junuuda rabbika illa hu doonte ne mbokk xoolal asamaan yi juróom-ñaar nga xam ne lii scientifique yi gisaguñ ci sax lu jege un millième waaye yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nee na asamaan day amul fenn foo xamee ne nii man nga faa teg sa ñeenti baaraam lu dul am na malaaka bu fa sujjuut di sabbaalal yàlla subhanahu wa taala kon yow jullil bu la neexee bu la neexee bul julli sunu borom ñàkkul ñu ko jullil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy nettali rek benn mindaafan ci mindaafanu yàlla yi di sawara nee na buy ñëw yombal xiyaama malaaka yi buñ koy indi dana am juróom-ñaar fukki junni jàppukaay jàppukaay bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka moo ciy téye boo ko xoolee dana nekk 4 milliards 900 millions de malaaka ñoo xam ne ñoom dong ñooy téye sawara wa ma jaalna ashaaba naari illa malaika suñu borom mu ne sawara dénkuma ko lu dul ay malaaka mbokk malaaka yooyu ñu ngi noonu suñu premier jokkoo ak ñoom mooy keroog ba yàlla di bind suñu bay aadama daal di ne hey yéen malaaka yi sama planète bi di terre mooy sama suuf sëlee dama faa bëgg yóbbu koo xam ne mooy nekk kilifa nekk fa kuutaay malaaka yi na borom bi subhanahu wa taala ndax da nga fay yóbbu koo xam ne day yàq da nga fay yóbbu koo xam ne day tuur deret te ñun ñi ngi lay sabbal guddi ak bëccëg boole ànd ak di la sant gis ngeen borom bi ne leen damaa xam lu ngeen xamul ba sunu bàyyi aadama pare sunu borom yàlla teral ko jox ko xam-xam bu mu joxul malaaka yi gannaaw ba ne malaaka yi sujuutal leen ko mboolem malaaka yi sujuutal sunu bàyyi aadama ba mu des saay-saay bu bon ba di iblis loolee mbokk mi ngi noonu malaaka yooyu ci cër bu màgg bi ñu la jox léegi nag yow doomu aadama heure bu la yàlla sosee sa biiru yaay ba nga am fa ñeenti weer sunu borom dana yónni benn malaaka mu indi la lu ñuy tudde ak ruux lan mooy ruux bañ ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quatorze siècle ci gannaaw dafa waxoon ar ruux min amri rabbi ruux yàllaa ko xam ba suñ jamonoy tey jii vingt et unième siècle scientifique yi ci àdduna yëpp xamuñu lan muy ruux li ñu xam daal mooy mi ngi ci doomu aadama mi ngi dund génn na ci doomu aadama dee na kon dana indi ruux sa biiru yaay sunu borom sant ko mu bindal la ñeenti mbir dana bind ana yow lan mooy diir bi nga nar a def ci kaw suuf cinquante ans la soixante dix ans la ñaata weer ñaata fan ñaata heure ñaata minute heure bu jeexee jeex na gannaaw ba daan bind la nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne moom nga fi nar a jëf daan bind wërsëg bi nga fi nar a am daan bind it ndax da ngay texe wala da ngay texe bi loolu yu mbokk jurit jurit dafa war a gëm loolu bu dee génn nga sa biiru yaay sunu borom subhanahu wa taala mu ne lahu muaqibaatu min bayni yadayhi wa min xalfi yaxfazunahu min amrillah amul benn jaamu yàlla lu dul sunu borom yàlla boole na ko malaaka yoo xam ne buy dem kii ngi ci kanam kii ngi ci gannaaw di ko wattu ci li yàlla subhanahu wa taala dogal ay amul lenn lu mën a dal jaam bi lu dul daa bokk ci bilan bi malaaka yi yor bu dul loolu yéegal avion bu explosé nga daanu ci suuf wallahi bu yàlla tuddul nga dee doo dee dugal ci oto na camion na camion dajeeg njaga njaay moxoña ko bu yàlla tuddul nga dee doo dee lu tax mooy malaaka yi ñoo lay aar amaa li yàlla dogal bu ñëwee kenn mënu ko gaar na la mille garde corps di wër ba dogal yàlla ñëwee kenn mënu ci dara yaxfazunuhu min amrillah heure boo yàlla dogalee nga majeur bokk na lu la koy xamal mooy tëdd nga guddi daje góor ci sa gént wala jigéen sa gént bi nga yeewoo nga gis ndox génn na ci yow su boobaa yàlla dina la wàcceel ñaari malaaka malaaka yoo xamee ni nii daan fi ñëw ci yow fajar di enregistré di denc lépp loo xam ne wax nga ko wala nga jëf ko ba baa tàkkusaan di jot su ko defee ñu yéeg ci seen boroom seen boroom yàlla daal di wàccee yeneen ñaari malaaka ñii yendu bala ñoo dem dañ xaar ñu war a fanaan buñ dañee jullit tàkkusaan ña fi yendu dem ci seen borom su ko defee sunu borom dana leen laaj naka ngeen bàyyee sama jaam ya ñu daal di nettali bu dee jullit ñi baax ñiy julli ca waxtu wa daañ ne ah yàlla day ñun ba ñuy dem ca fajar dañ leen fekk ñuy julli ba ñuy dem tàkkusaan ñu ngi leen bàyyi ñuy julli yàlla nañu yàlla musal ci ñu malaaka yi di wax ne yàlla day bañ ñëwee ña nga leen fekk ñuy nelaw ba ñuy dem ña nga leen bàyyi ca baar ba wala bañ ñëwee ña nga leen fekk ca xew ba ba ñuy dem ña nga leen bàyyi ca la nga xam ne ni mooy naaj club ba loolee ku ne ñun war a bàyyi ci xel loolu mbokk malaaka yi da ngay gis ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi ko boole ak ñun dañuy war fu ñu mën a toll di ànd ak ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dañuy dem ci kër julit ñi kër julit mooy kër gan mooy kër gu ñuy jàng téere bu yàlla mooy kër gu ñuy naafila mooy kër gu ñuy waxee lu baax dañuy ñëw di dugg ci kër jullit ñu nekk ak ñoom allahuma lu dul yonent bi nee na bépp kër bu xat nekk malaaka du fa dugg bépp kër boo xam ne dafa am ay nataal na doon ay dessin la wala lu mën a doon yuñ fa wékk malaaka yi bu ñëwee duñu dugg loolee itamit ku nekk war a nemmeeku la nga xamee ne moo nekk sa kër soo bëggee dëkk ak malaaka yi mbokk da ngay gis ne sunu yonent alayhi salaatu wasalaam daan nañuy wax ne bépp jurit boo xam ne bi ngay tëdd da ngaa ànd ak njàpp da ngay gis yàlla dana la booleeg malaaka boo xam ne foo wëlbati koo mun a yàlla yàlla na nga yërëm sa jaam bi moom de bi muy nelaw mi ngi nelawaale ak laab mu amit loo xam ne jigéen ñi war nañ ko bàyyi xel su ne yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne amul benn jigéenu julit boo xam ne borom këram da koo soxla amul benn ngant mu bañ lu dul malaaka yi daañ koo fanaani rëbb ba baa suba di jot bépp jigéen boo xam ne dafa génn kër jëkkëram te ba muy génn génnul ci ndigalu jëkkëram malaaka yi dañ koy rëbb ba baa muy dellu si mbokk malaaka yooyu noonu la ñu àndi ak ñun bokk na loo xam ne yeneen ci bi alayhi salaam wax nañu ko nee na amul kenn koo xam ne yaa ngi génn sa kër lu dul yaa ngi fekk ñaari drapeau benn drapeau bi malaaka moo ko yor beneen drapeau bi seytaane moo ko yor su dee la ngay génn lu yàlla gërëm la malaaka bi daal di ànd ak yow bu ko defee ku la seen xam ne kii day mi ngi dox lu yàlla gërëm amma bu dee la ngay dox yàlla gërëmu ko malaaka bi bépp seytaane ànd ak yow shayatin yépp ku gis ne ah kee day moom mënees naa jéem ci moom dara ndax la muy dox yàlla gërëmu ko loolee di lu ñuy war a bàyyi xel mbokk julit sunu yeneen ci alayhi salaam nee na amul kenn kuy génn këram di sàkku ju xam-xam bu mu jaamoo yàlla lu dul mboolemi malaaka yi nga romb foo romb dañuy wàcc seen i laaf comme ni militaires yi di tóojale seen i généraux ngiree kontaan li nga xam ne yaa ngi koy sàkku ay yéen mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal nañu ci ne sunu borom day am na malaaka yoo xam ne ñi ngi wër kaw suuf ana lu ñuy déglu mooy kuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure boo jullee ci yonent bi malaaka yi ne ay yow mi yàlla yónni su ci kattan bu leen sunu borom subhanahu wa taala may ki nga xam ne mooy fàccaam ca Sénégal day mi ngi julli ci yow sunu borom delloo yonent bi alayhi salaam ruuxam mu daal di ne ay yàlla yàlla na nga julli ca fàccaam moomu di julli ci man su ko defee sunu borom julli ci moom fukki yoon yonent bi alayhi salaam bégal nañu nee na amul ñenn ñoo xam ne ñooy dajaloo di tudd seen borom di jàng seen téere borom lu dul malaaka yi dañu leen di wër ba asamaanu benneel gannaaw ba sunu borom yiir leen ci yërmandeem sunu borom di leen tudd ci malaaka yu kawe yi nekk fi moom mbokk sunu yonente alayhi salaam mi ngi ñuy bégal ci ni sunu borom mas na ko laaj ma yow Muhammad ndax xam nga fii maa yaxtasimu malaul ala malaaka yi ci kawe yi ana lu ñuy jëkkante yonente bi la kaa xóomu ko de gannaaw ba sunu borom xamal ko mu ne ko na am ñi ngi jëkkante fil kafarat wa darajat mooy ci far bàkkaar yi ak yëkkati daraja yi loolu mooy lan mooy ñi nga xam ne dañuy jàpp ci jamono ju jàpp méttee ñay bëril ay jéego ca jàkka ja ña nga xam ne dañuy julli ba pare toog fa di def ay askar ñooñee da ngay gis malaaka yi dañuy jëkkante ngir far seeni bàkkaar mbokk jàkka ji moom mooy seen daluwaay heure bu ñu wàcce ci kaw suuf jàkkaay seen daluwaay yonente bi alayhi salaam bégal nañu ci ajjuma ji ñuy ñëw nii ka nga xam ne moo jëkk a dugg ci jumaa ji malaaka yi dañuy bind turam kaka ñaareel ñi bind turam dem nañ ba jamono di doxe noonu demal Sonatel wala feneen dem fa fekk ay ticket ki jëkk a ñëw jël ki jëkk a ñëw jël noonu la ñuy bindee un deux ba baa mille mille cinq cent su ñu demee ba imaam ñëw ñu lem seeni dossier ñëw toog ci mbooloo mi di déglu xutba imaam bi lii di mbir boo xam ne jullit da koo war a gëm heure boo xamee ne nii julli nga ba pare toog foofee malaaka yi ñu ngi lay jéggaloo ko ñaanal tànk sa njàpp tëjul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy jàngal ne bu imaam ne wala daalin ñoom ñépp lañ naan amin koo xam ne sa amin dëppoo ak amin malaaka yi ñu baal la loo indi woon ci ay bakkaar malaaka yooyu noonu la leen yàlla yi diggéen nii amul benn julit buy ñaanal mbokk julitam ci loo xam ne yéegu ko lu dul benn malaaka dana ko tiim ne amin yow yal na la yàlla may li nga ñaanal sa mbokk julit mbokk malaaka yi ñu ngi noonu ñooy ñi nga xam ne heure bu natt bu tardalee sa kaw bàyyi leen xel yonent bi alayhi salaam bu ma san fekkee koo xam ne mbokkam dafa dee danaan ko waxal jàmmale malaaka yaa ngi lay déglu loo wax ñu ne amin alku naa amin torox naa amin loolu lañ lay waxal kon jurit lu muy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaan yàlla yërëm sa way dee ñaan yàlla mu wuutal la ku ko gën loolee malaaka yi ne amin lii mbokk julit lañu cay jeexale mooy malaaka yooyu sunuy xarit lañu ñi ngi ñuy ñaanal sunu borom nee na ña nga xam ne ñoo yenu arash ak ña ko wër ñi ngi sabbal seen borom waaye di jéggulul julit ñi ay yàlla yow de sa yërmaande peek ñu lépp bàkkaaru julit ñi lu mu bari bari sa yërmaande ko ëpp képp ku tuub ci ñoom baal ko jéggal ko ay bakkaaram yàlla nañ ko dugal àjjana ak ko baax ci ay soxnaam ak ko baax ci ay baayam ak ko baax ci ay njabootam xoolal malaaka yi li ñuy ñaanal dañuy ñaanal di ñaanal sunu wayjur di ñaanal sunuy doom gannaaw ba yàlla yàlla nga leen musal te la nga xam ne mooy bépp ñaawteef bépp mbugal yow day koo musal yërëm nga ko mbokk malaaka yooyu itamit la ñu yeneen ci bi alayhi salaam bégale woon ne heure booy taaya daaju ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin yàlla yàlla may ñu jàmm may ko mboolemi jaamu yàlla yu baax yi yonente bi alei salaam nee na ñaan la guy ëmb mboolem jaam yi nekk ci kaw asmaan mi malaaka yi ak képp ku nekk ci kaw suuf muy nit ak génne kon yow jullit yaa ngi noonu malaaka yaa ngi lay ñaanal yaa ngi leen di ñaanal yal na yàlla nangu suñuy ñaan te boole ñoom ñoom ci àjjana ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أين بكو جريت نيجي yeesal cant gu ñuy sant sunu borom di ko ñaan mu julli ci yeneen temb muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom boobu nga xam ne nee na mooy ci not ay jaamam mboole seen mooy ci yónni ci yéen ñu leen di wattu ba baa dee dikkal kenn ci yéen sama yeneen te daal di koy faat te ñoom day du ñu gàttañlu du ñu rey ku wër te dee du ñu bàyyi ko war a dee gannaaw bu ñu delloo leen ci yàlla mi nga xam ne mooy seen féete dëgg yàlla moomu moo moom atta yi ca moo gaaw nu muy xisaaba ay jaamam ay yow mbokk julit malaaka yi ñi ngi nekk ak ñoom gisuñu leen ca aka bari doomu aadama lu la wër ci gisoo ko malaaka yi ñi ngi nekk ak ñun gisuñu leen heure boo xam ne yaa ngi sukuraat su boobaa nag sunu borom ne wa jaat sakaratul mawti bil xaq keroog la sukuraat bi ñëw dëgg nga daal di commencé gis malaaka yi bu dee ne yow ko baax nga malaaka yu tedd yu taaru ngay gis ñu ñëw toog fële su ko defee di xaar seen kilifa muy malakul mawt bu dee ne malakul mawt ñëw na jël sab ruux malaaka yooyu ñooy ñëw ëmb ruux gi ca laytaay buñ jëlee ajjana daa ji lay nekk di la bégal daa ji ne la yow bul tiit bul jàq gis nga yow ajjana mooy sa wàccuwaay ñun ñoo nekkoon sa xarit ca àdduna doonte ne yow xamulooñu léegi yóbbu la asamaan benneel bu ko defee malaaka ya fa nekk na waaw koo kan la ñu ne kii de mooy diw mi nga xam ne nii mooy diw doomu diw su boobaa malaaka yi ne ko marhaban jaam bu baax boobu mooy sunu soppe boobee ca loolu ngay gëm yonente bi alayhi salaam nee na sunu borom heure bu bëggee benn jaam dana woo jibril alayhi salaam ay jibril man de bëgg naa diw nanga ko bëgg jibril na ay sama borom bëgg naa ko daa di wàcc ci malaaka yi ay yéen malaaka yi sunu borom nee na bëgg na diw bëgg leen ko malaaka yépp ne bëgg nañ ko yal na yàlla boole ñu ci ñim bëgg ki malaakaam su ko defee malaaka yi ne ko marhaban mu dem asamaanu ñaareel asamaanu ñetteel ba juróom-ñaareelu asamaan ba dem fa soob boromam sunu borom nag daal dina malaaka yi sant naa ko gërëm naa ko delloo leen ruux bi fi fi illi yéen loolee mbokk ci gàttal saay-saay bi contraire ba lay am premier asamaan la malaaka yi wax kookan la ñu ne diw saay-saay bi ñu ne kooku kooku de kenn du ko ubbil buntu asamaan laa tufattahu lahum ababu sama kenn du ne buntu asamaan ñu daal di koy delloo fil jahim yonent bi alayhi salaam mi ngi ñuy wax ba tey ne heure boo wàccee aéroport u alaxira muy bàmmeel aéroport u alaxira bu la faa cëpp lan nga fay fekk mooy ay malaaka ñoo ñëw teeru la posé la ay question mooy kan moo nekkoon sa borom lan moo nekkoon sa diine kan moo nekkoon sa yonent su dee ne yaa ngi doon dund laa ilaha illallah muhammad rasulullah sunu borom moo lay saxal nga ne man yàlla laa doon jaamu bokkaale wu ma ko dara sama diine mooy lislaam muhammad mooy yonent bi yàlla yónni woon ci ñun yàlla yàlla def loolu mu nekk sunu tont mbokk loolu da ngay gis ne ca la la sunu borom di bàyyi ba baa bis boo xam ne yaa ngay dekki sunu borom yàlla subhanahu wa taala boo dee tëll sa bàmmeel yaa ngi fekk ñaari malaaka ñi ngi taxaw wa jaat kullu nafsin maaha saiqun wa wa shahid bu ko defee malaaka yi ñi ngi taxaw kii moo yor say dossier kii mooy ki nga xam ne moo la jiitu bu dee ne yow ko baax nga woon sunu borom mu ne yowma naxshuru almuttaqina ila arrahmani wafda dañ lay escorté di la tàgg ka gërëm di wax wax ju neex ba baax taxawal la sa kanamu borom amma bu dee ab saay saay nga wa nasuuqu almujrimina ila jahannama wirda dañu lay diri say tànk la ñuy jàpp féete la kaw di diri sa kanam ci suuf ba taxawal la ci kanamu borom bi jalla wa ala mbokk malaaka yi borom bi ñu ngi noonu mooy ñi nga xam ne ni sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na su àttee ay jaamam ba pare ñooy nekk jullit ñi ca àjjana والملائكة يدخل يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ملائكة ñoy nek ak julit ñu bax ñi ci aljana khalidina fiha abada nek seeni xarit nek seeni soppe di leen félicité di leen fàttali mbaax ga ñu nekk woon ci kaw suuf mbokk malaaka yi borom bàññi noonu ana lu ñu war a taxaw ci seen mbir lu ñu war a gëm ci ñoom jàppal mbokk malaaka yaa ngi nii jàng nañ ci xutba bi sunu borom mu nii laa yasuna allaha ma amaruhum wa yafaluuna ma yumaruun li yàlla digle duñ ko mooy ngal la waay jàppal ci loolu bàyyil ay bakkaar lan moo la ci yóbbu mooy fokkastalu boo fokkastaloo gaawal tuub xatta malaaka ñi ngi ñaan boo tuubee yàlla bal faxfir li lazina taabu wattabau sabili gannaaw ba sunu borom mu ne yafaluuna ma yumaruun malaaka du def lu dul lu ko yàlla digal yow mi bëgg a jaamoo yàlla bu ko jaamoo lu dul yàlla digle gaa yi yàlla lam digle woon kan la ko joxoon sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam bépp ndigal bu ñëw gannaawam wallahi bokkul ci mbir mi gannaaw bu yow mbokk julit sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñii nga xam ne ñooy malaaka yi day yusabbixuuna leyla wa nahar la yafturuun malaaka du dog ni ngay noyyee la malaaka di sabbaale boromam guddeeg bëccëg mi ngi sabbal boromam loolu mu lay won ne yow julit place ba ngay toog defoo dara yaa ngi ci oto ba yaa ngi ci yoon ba ngal la waay jéemal roy malaakay borom bi di sabbal yàlla foo mën a toll di bàkk yàlla foo mën a toll waaye xoolal li borom bi nett di nee na malaaka yi dañuy jéggalul julit ñi ay yow julit baa da nga jéggalul julit ñi sunu borom yàlla sant ñu ne sunu mbokk julit juum na ñu koy xasaka jëwoo ko yëjji waaye la yàlla sant mooy ñu ñaan yàlla jéggal ko rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna fi bil iman gannaaw loolu mbokk julit sunu borom yàlla tagg na malaaka yi daa di ne ah laa yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi yamaluun yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yashfauna illa liman liman liman irtada wa hum min xashyatihi mushfiqun sunu borom yàlla nee na duñu ma jiitu ca itamit ne duñu ramm kenn lu dul ne yàlla subhanahu wa taala moo gërëm kooku te it sunu borom nee na ragal gi ñu ragal yàlla dafa tar ay yow julit baa bokk nga ci ñi ragal yàlla dañoo ragal yàlla mu seen ci ñoom ci seen xaal mboole seen loolee nga xamee ne nii yonent bi alayhi salaam nee na moom la julit ñi di jëkk a ñàkk su ko defee mbokk julit ñaar yéen cay mujje moo dina malaaka yaa ngi noonu sunu borom boole na la ak ñoom ñuy ay gardien ngal la way booy ragal ragalal yàlla subhanahu wa taala keefe amul lenn lu la mën a dal lu la mën a lor lillahi taala waaye malaaka yaa ngi noonu sunu borom nee na yaalamuuna ma tafaluun heure booy wax bàyyil xel ne malaaka yaa ngi may déglu heure booy jëf bàyyil xel ne malaaka yaa ngi may seede heure booy seede mbir bàyyil xel ne malaaka yaa ngi may dégg te sunu borom nee na kiraaman kaatibin dañoo tedd lool te nekk ñoo xam ne dara du leen rëcc mbokk li mooy la ñuy jàpp ne képp ku ko gëm ci malaaka yi da nga texe képp ku jëflante ak ñoom malaaka yi da nga texe la ñuy mujje mooy ñaan ngay yonent bi alayhi salaam doon ñaan yonent bi day bu masaan jóg naa fi la guddi daana wax ay yàlla yow mi nga xam ne nii yaa bind asamaan yeeg suuf yow mi moom jibril moom mikail moom israfil yaay àtte say jaam bis bu ñu taxawee sa sa kanam te lañ nekkoon di ca juyoo yàlla nag ma teg ca lay dëgg ci juyoo googu yaay jubal ku la neex ila siraati mustaqim kon ñu ngi ñaan sunu borom ñu ne di wax allahuma fatira alsamawati wal ard ah jaail rabbu jibril wa mikail wa israfil anta taxkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaxtalifun allahuma ahdina lima axtalafu fihi min alxaq biiznik innaka tahdi man tashaau ila sirati almustaqim allahuma ahdina fi man hadayta wa aafina fi man عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت نستغفرك الله ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين